salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi am contentement mbégte di leen nuyu bu baax a baax di leen ziar te di leen tatagal di leen dalal fi nga xamante ni moom moo di euh, wasaare TV euh, mbokk yi tey nag ñu ñëw fi nga xamante ni moom moo di Touba New York amal fi màggalu Touba euh, comme niñ koy amalee. partout dans le monde euh, mu nekkoon li nga xamante ni nag tey moom la leen fas yéenee digtal daal di ñëw fii nga xamante ni euh, mooy euh, Touba New York fas yéenee waxtaan ak askan bi waxtaan ak murit yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk bés mi nag tey dafa ala doome xéewal yi bëri na vraiment boo nekkee ci biir màggal gi nekk ci biir mbooloo gi da ngay dem ba mujj gi sax yow doo doo sentir ni yow yaa ngi fi nga xamante ni moom moo di États-Unis d'Amérique ba tax na tey dinañu def ay ay li nga xamante ni moom moo di ay laaj daal di ànd ko ak ñoom laaj leen seen nekkin ak seen gisin fi nga xamante ni moom la leen fekk tey muy New York di màggalu Touba. Euh, tey nag euh, ngeen si am ki nga xamante ni moom moo di euh, ATM Seck borom l'est l'ouest le nord et le sud fii ci New York incha allah rabi ñoo ngi yéen si kanam tuuti ak murit yi jaajëf mbokk yi gis ngeen fi ngeen di gis nii moom moo di terrain basket bi euh, fii nga la góor yàlla daje dañoo mujj def ko li nga xam ne moom moo di organisation fee ñu bàyyi euh, jigéen ña ñu mën fa nekk su ko defee góor yàlla euh, nekk fii nii su ko defee ñu daal di dox tuuti am ñenn si góor yàlla yi ñu jël leen bu baax a baax jëwriñ maa ngi lay ziar doon lay ziar naka xidma yi sant Serigne Touba gis naa ni yaa ngi takku ba dëgër ànd ak àll bu bëree bëri macha allah maa ngi lay wër ci biir ni ñi sax boobaak léegi mënu ma laa nga dundee tey liggéey bi waaw dañuy dox si baytu yaa malikal mulki yaa man jàllaan xawadi rek irham jami alwara yaa haden rada xam nga Serigne Touba moom la muy wax ni sama tey ju day gàcceel sama démb maanaam boo ko bañee gëm rek da ngaa fekkewu tayam fekke woo démb waaye ku fekke tey jii fekke démb di nga xam ne sëñ Touba moom amul tànki ginnaaw tànki kanam laam te da doon wax naan maanaam bis bii nii li tax mu def ko mooy ba muy dem ci liggéeyam bi la ni na ngeen ma santale suñu borom parce que maa ngi dem di jëli ji seen noflaay damaa war a dem ñëw indi añ bi jox leen ngeen raxasu lekk seen noflaay moo tax bis bi bu ñëwee maanaam daanaka doo xam ne murit bi tiijaan bi xaadir bi laayeen bi ñaseen bi ñëpp ngay gis ñu takk fi mu toll nii boo xoolee saal bi ay juif sax ñu ngi fi sëñ Tuubaa rek moo mën a dajale lii kon lim doon wax naan nafsi wa diini suma ahli wa walat wa maskani wa dihatun abad sëriñ bi moom mooy sëriñ bi rek sëriñ bi daal mooy sëriñ bi maam ñi ngi ñaan nag lii ngeen xamante si nii yéen a ngi ko xeeb gàddu ko nii maam yal na leen si lu fawxa seen njortu fekk muy média bi gën a mag wala muy tele bi gën a mag wala muy maanaam joxekaay xibaar bi nga xamante ni képp koo gis ku ne day yaatal yàkkamti pour maanaam seetaan seen joxekaay xibaar bi nii waaw. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax baax xam naa ne euh, moom Njalabaan yi moom waroon nga ma cee baaxee benn njël yi yeeg. ah ma ñun ñun mooy li ma leen waxoon rek ñun ay Baay Faal lañ yàpp yaram bi rek la suuf bi changé mais jikko ji ak jëmm ji yàlla du si changé dara moom la ñuy waa xol bi parce que ñun ay Baay Faal lañ xam nga boo awee xel kom jaaga. nekk si Serigne Saliou ah, am na yu bari yoo xamante ni mënatoo koo def ñoot di fii lii wala lële lu dutug taalibe mënuñu koo ñoddu lu dutug taalibe tamit doo ko gis si ñun barke Seera Fall jërëjëf ñu ngi lay jëfal bu baax jëfati jërëjëf jëriñ du la téye jaajëf <laughs> akasa mbokk yi dafa mel na damay seen ki nga xamante ni moom la ñuy wax Yanda Yanda nag euh, di ab mbër nekk fi nga xamante ni euh, moom moo di New York euh, ñu daal di koy ñëw rek boobu ak léegi mënuñu fexe ba mu génn waaye comme yàlla dogal na ndaje bi ñu fekk ko fi tey moom xam naa ne dina wax ndax boobu ak léegi ñu ngi koy woo waaye Yanda daal réer nañu si dëkk bi mër Yanda na nga def. waaye sant rek ay ñoo lay bëgg a wér. Yanda it waaye gërëm yàlla rek comme naka nga dundee bés. waaw santati rek comme fekke nañ ko di dox di wax moom mm-hmm. sant yàlla rek. wax dëgg yàlla bu baax a baax a baax. ñu gis boobu ba léegi ñu ngi lay wër si dëkk bi xamuñu fan nga fiite wasaare làmb ak lay wër ah jël nañu ku ne ba si infra rouge mi nga xamante ni moom nga toogal ñëw na wasaare làmb waxtaan ak ñun boobaak léegi ñun ñu fexe ba gis la ndax pare nga pour ñëw. non léegi rek incha allah léegi rek nga gis ma yow sama waay nga yow xamante nañ <laughs> bu caméra yi wàccee léegi ñu waxtaan jubóo. bu caméra léegi ñu jubóo. mais ci làmb foo nekk ñuy màggal ma ne foo nekk ci yal naa foo jaar di nga wax tey maa ngi nii rek comme d'habitude maa ngi nii rek xam nga lépp mooy loolu maanaam na nga bàyyi làmb bàyyi làmb non mënul ne ñun lu ñu am làmb ñu ko may te tamit fier nañ ci daal ndax bu ñu sant yàlla gërëm suñu waajur wax dëgg yàlla dañuy sant làmb ndax tey lu ñu am ci àdduna yëpp moo ñu ko may kon mënuñu ko bàyyi yee dafay nekk xam rek ni day toll ci jamono yoo xamante nii mooy loolu daal mooy loolu mais nag ñu ngi ci làmb ñu koy suivre wax dëgg yàlla. pare nga pour dellu ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllum làmb ji. of course du ma sax wax dëgg yàlla ñu ngi daal ñu ngi nii ay ndaw lañ xam nga yàlla nag moo xam li xew suba. mais fi mu nekk daal ñu ngi ci réew mi di ñaan yàlla defal ñu jàmm ak taw féex man ak samay raq yi fi ne yëpp wax dëgg yàlla mais nag suba moom suba yàlla la man xaw ma waaw li xew tey daal laa gis ñu sa morom yi moom ci làmb ñi ngi prouvé te yow ku mën a bëri nga ku am tur ci làmb nga ku am coow ci làmb nga ndax tey pare nga pour am koo xamante ni yaa ngi koy waajal pour affronter ko ci làmb waa déggoo li ma wax may la ñun lu xew tey li liñ nekk tey lañ mën a wax mais li xew suba moom xamuñu ko si morom yi nag ñi ngi gis ñi ngi prouvé wax dëgg yàlla làmb jaa ngi gën a mi neex wax dëgg yàlla ñu ngi leen koy ñaanal tamit ndax ñi ngi ñaan yàlla ba mbëri fay ko milliard loolu mooy suñu ndam quoi mais fi mu ne daal ñu ngi ci réew mi te ngi ñaan yàlla daal yàlla dafa. am nga xalaat maanaam koo xamante ni yaa ngi koy xalaat ci adversaire wala ci lu yoon li jëm ci làmb ko mbayeegoo làmb moom xanaa am na foo teg sa bët. <laughs> ay fi mu ne xamul ma daal yàlla defal ma xëy yàlla defal ma jàmm ma am tawfeex bàyyi ma xel kenn ku dul sama jëmm ji. moom mi ngi toj réew mi fi mu nekk nii si tànge fa ndax pare nga pour dem MMA comme yaa ngi États-Unis tamit. da la mbëri si ne ñu ngi ñaan yàlla ñu gën a yokk ñun daal ñu ci liñ ne te te wax dëgg yàlla ñu ngi ci yëg suñu bopp ñu ngi sant yàlla daal. yaa ngi xalaat dem MMA. déggoo may la suba moom yàllaa yàlla lañ te waaw yaa <laughs> jërëjëf comme comme nangoo leeral nañ nañ naa la euh, xoj naa la sës na si miiru xotti biteel bi nangoo wax euh, ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax xam naa ñu jox la dig daje ba beneen. ñu ngi kontaan ci yow ndax yow nit ku baax nga wax dëgg yàlla nit ku oyof nga. waaw ñu ngi lay ñaanal yàlla daal yaa xam li nga mbébét sa biir xol yal na la ko yàlla defal mu te mu ñëw nekk lu gën ci yow waaw te jàmm rek nga am ak taw feex ndax dem. waaw jërëjëf yàlla am ak xewal yàlla sa mbasin rafet na. thank you gay gay de. yàlla tay ay neexoo maa ngi lay nuyu. maa lay fay. Efra Efra Rouge li nga li nga wàcc ca wasaare. bës ba fa def coow la nga ca bàyyi. dara dañuy foo rek ma rek. lépp yéen la rek. yee lépp yéen la. mais di nuyu ñëpp tamit. di siyaar ñëpp di baal ñëpp ak si màggal gi. di siyaar sama grand yi ku si mel Yanda ak Edouard di la jox. di siyaar gaa yëpp. waaw naa leen baale ñaar. waaw yee. dundee màggal bi tey. yee màggal gi neex na ama màggal Amérique moom du mel ni bu Sénégal quoi. dañu dem liggéey wàcc rek ñëw jaar fi. yee mooy loolu. ndeysaan jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf ñu waaw mais kilifa gi. waaw maa ngi lay fay. yow yow yow yow yow yaa ngi ci làmb. waaw maa ngi ci làmb ji Edouard dible la jox. xam nga Edouard la. Edouard Dib la jox. Edouard Dib moom mooy la. Euh, Edouard Dib la jox mbaru séeréer la. man bu ma déggee Edouard Dib la may fàttali de. waaw waaw Edouard jox toj làmb simple bi. Mhm. am euh, six combats ci arène bi. cinq victoire ak benn niil daaw maak treize ñun ñoo woon ñu mhm. waaw après mu génneel par des kii quoi euh, décision arbitre quoi. waaw mais bëre simple mu tamit euh, toj nañ ko quoi jël nañ fa ay mériteurs jël nañ fa lépp daal. maanaam maanaam daal prouvé nga ci làmb. waaw waaw prouvé naa ci moom toj. ci ci ci lutte avec frappe la ñuy wax kan kan nga ci daan. Euh, lutte avec frappe euh, daan na am seen junior daan Zallo daan kii Mamadou Massina ak Ousmane Gandigal ak nu mu tëdd beneen booy bi fàtte naa ko. ay ndaanaan rek. waaw ay ndaanaan rek laa fi après maag treize ndiir niil bu simple bi tamit ñoom xawaan yëpp daan leen ci. lam bi tegoon ñetti jakarta yi euh, ak un million cinq cent yi ko jëloon jël naa fa quatorze nag tamit jël naa fa dix nag lamb bi ma nga tegoon oto. waa nag naa la may benn parce que nag li ma ci jël mot na 85. xam naa ni mi te demagoo dinañ jàkkaarloo ci li nga xamante ni moom moo di wasaare làmb ñu gën koo tasaare mu tasaaru. waaw noonu la rek réew moom di gërëm sama gars yi parce que bu ma ñëwee xaw tamit mais ñoo ngi may yaatal daal. di la expliquer parce que ñun ñëpp ay mbër lañ ñun ñëpp benn lañ quoi di gërëm ñi ma yor fii encore tudd nga tudd nga ñu baax euh, seen parce dama ñëw ñu yaatal ma toog waxtaan ak man xam nga mënoon nga ñëw tamit mm-hmm. duñ la faale mais ñoo ngi ñuy toog ñu ne ma toogal nii ngay def na leen ngay def defal nii ak nii da nga leen di gërëm rek waaw yéen tamit di leen di gërëm yéen ay borom baax nga yàlla na leen yàlla defal jàmm c'est la première fois nga ñëw ci réew mi wala waaw euh, c'est la première fois ma ñëw fii nag ñëw demoon naa France mm-hmm. dem France dellu après ñu may ma deux mois ma def fa mois ñëwaat dama doon wàcc combat après bu ma ñëwee si laa ñëwaat fii nii quoi maa ngi fi soog a def nii un mois mais Dallas laa wàccoon. après si laa ñëw fi def fi une semaine quoi. fii bi da nga ñëw pour toog wala da nga ñëw pour préparer combat. non préparer wu ma combat nag dama ñëw pour di entraîner di xoolaale dëkk bi di liggéeyaale bu ma amee combat yi parce maa ngi sama manager ñoo ngi déggante Mbaye Diagne. tey rek ñoo ngi déggante bu ma gisee lu bëri sama bët rek ma dellu. doo def ni sa gars yi non san dépend rek. gars yi dañoo ça dépend rek bu ma gisee lu ñu gis tamit ba ñu toog ba ñu toog ma ma toog rek. mi ni ma lay gisee sa xel mi xelum toog a àdduna moom da ngay sóoraale lépp rek. lépp ngay sóoraale te xam ne combat mun na laa bett. maanaam sa xel mi ci toog mi ngi ci dem. noo déggoo li ma la wax comme visa 10 ans laa yor. Ah. te maa ngi entraîné tey buñ ma wooyee ne ma ne am na lu taxaw damay dem. kon baax na ñu ngi lay jaajëfal bu baax xam naa du ñu def lu rek jox la dig daje ba beneen. waaw ok merci kontaan na. incha allah di leen nuyu yéen ah, yi ba tey ñu des ak yéen ci li nga xam te ne moom moo di wasaare TV mbër maa lay ziar. waaw demal ci grand bi ñu ngi delloo ziar sama. ci grand bi laa jugee. waa ñu ngi delloo ziar bu baax. jaar naa ci grand ba jël ko ba xam nga ñun moom ay ndaw lañ. Uh-huh. ñun kenn xamuñu ay ndaw lañ defuñu dara ci làmb kon ñii ñooy suñuy mag mm. ay yanda ay bérésil xam nga gars yi ñooy suñuy mag quoi ñun moom defaguñ dara si làmb duñu dara. dara si làmb nga présenter sa bopp. <laughs> waaw man la Jabel. Jabel bu yoof xam rek doon xale ñëw Amérique c'est la première fois nag. waaw ñu gis nag gars yi ndaw sëñ tubaay ak Baay Faal xam nga nu ñuy nu ñuy nu ñuy teral a gars yi daal xam nga ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. parce que ñun amuñu lu dul Serigne Touba loo ñuy jaay wala loo ñuy nax rek si Serigne Touba nga ñu nax kon xam nga ñu ngi ñu leen di ñaanal lu ñu man ren rek bu déwénee nañ man lu ko ëpp. ay ndaw yu am pasef lañ man mi tey dugg naa ji xam nga dugg naa ji jox nañ ma bat jox nañ ma lépp incha allah lu ma fekkaat dinaa futeeku ku ak ñoom liggéey. jërëjëf Jalle ñu ngi lay jërëjëf jërëjëf tempi. mbër maa lay ziar. waaw maa ngi lay fay gars yi siyaar naa la bu wér a wér du la siyaar si bis bu màgg bi waaw mooy muy bisu màggal bi ñu defee ko fii Amérique di siyaar ñëpp du leen ñaanal yàlla na fi jàmm sax. di ñaanal suñu sëñ Touba lu mu bëgg su bi yàlla na ko am parce que sëñ de am na ko ba pare sax waaw ku jaar gomo jaar maa yombe kooku deseelatuñ ko dara bar sëñ Touba. kon nag nga dundee bés waaw dëgg dama dama kontaan rek chaque année ma dundee ko fii. bari sëñ Touba kontaan naa trop sama xol dafa sedd parce que man taalibi sëñ Touba laa. man lu ma munte am rek barki Serigne Touba. sëñ sëñ Bamba rek. sëñ Bamba rek kontaan nañ trop. mais ñu gis ni yaa ngi ci état dafa am lay waajal wala. waaw ale bu nekk am na retour. ban retour waaw nañ teg seen loxo maa ngi ñëw. ba retour la maa ngi ñëw foofu. ngeen ni Reug mi ngi. waaw waaw rek Reug moo fi. Reug rek moo ngi fi. fii de Amérique moom mooy loolu. fii moom. waxuma la rëg-rëg rek mbër yi fi nekk dafa bëri boo gisee noonu jëf jël noonu yanda champion yëpp a ngi fi waaw koo si xalaatul rek ñoom ñëpp a ngi fi pourquoi pas Bruce Lee ak rëg-rëg waaw mais dara lool day neex loolu gars yi bëgg nañ ko leneen la buñ bëggee déwén ñu tegu ko parce que sëñ Tuubaa man pare naa de waaw mbërëntaan dama ne yow xam nga man mbërëntaan la ñuy wax man maay professeur dafa ñeme lu métti maay professeur nee naa la lu nekkoon su bopp bi dañ na ale bu nekk am na retour lan moo nekkoon ci bopp bi. moo man xam naa xam naa mais yàlla baax na lépp alhamdulilah maa ngi nii firi ba sëñ Touba. mais rek nga laaj rek. na ñëw ma tekkeer ko jàngal ko bëre lan la loolu mooy wax ji rek dangay ngay ñëw ma teker la jàngal la bëre waxuma la doo champion de mais da ngay ñëw ma tekkeer la jàngal la bëre nañ lekk avance bi. àcc kon àcc kon rek rek ñoo ko déggandoo Bruce Lee sa naataango la mbër la ni yow mën na bëre. def na prouve marqué na empreinte dem ci làmb yaakaar naa ni làmb war na leen mën a boole kon rek tont boobu yaaka moom di man maa koy tontu ay ci kon ñu bàyyi la nga tàggat. waaw sant Serigne Touba rek di fi ñaanal ñëpp ak ñu fi daje ñëpp yàlla na fi jàmm sax di ñaanal fii Amérique xam nga chaque année ñu koy biis yàlla nañ ko fekkee ay déwén déwén. déwén mu fekk fi gars yi ñu fu bëgg a dem Sénégal màggali gars yi fekk ñu fi mën a des. jaay yàlla na ñëpp am jàmm ku fi ñëw du fi ut dara yàlla na lépp sot man loolu laay ñaan du ñaanal sama waa secteur parcelle unité un ba vingt six Médina Fass sama écurie Fass ñoom ñëpp maa ngi leen di bégg du ñëpp bàyyiwuma kenn siyaar naa leen jokko njël asalaamaaleykum jaajëf Bichri nga jaajëfal bu baax a baax mais soo bëree maa lay laaj nu mu nii mais Pakala ma mais Pakala mais Pakala bàyyi nga sa loolu atem yow eh, yaay borom yow eh, yaay borom États-Unis foo nekk. borom New York maa ngi nii rek maa ngi nii sant rek. yaa ngi Brooklyn. waaw maa ngi Brooklyn waaw. sa xaalis. non maa ngi ci waar bi di entraîné xam nga mooy loolu noonu. di préparé. waaw di préparé waaw. ngi ci état de. non xam nga rek. <laughs> koy préparé. non xam nga rek dañuy def comme yu fi rek xam nga comme entraînement moo ñu fi indi. dañuy def lu ñu war rek. waaw ñun ñun nag ginnaaw lool nag ñoo ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp xam nga di wax gars yi màggal bi nañ ko màggal si jaam ak salaam xam nga li gars yi ñaan yëpp yàlla def ko Sénégal def ko ci réew mi ñu nekk tamit xam nga di ñaanal ñëpp daal tawfeex. allahumma amiin euh, c'est la première fois defe naa euh, li nga xamante ni moo di màggal Touba fekk la fii ci New York. yee waaw loolu moom la parce que man yàlla xam na ni safar gi ba mu teroo ba léegi man a mel ne ku feebaroon ah, parce que ne. gars yi ni ñu koy dundee Sénégal ni ñu ko dundee fii Amérique. yeah mais man nag tey bi ma ñëwee fii non sama xol moom vraiment lépp moo métti woon semaine bi passé tey sama xol sedd na. nga daal di tekkeeku sa yaram fecceeku. oui te Sëñ Tuubaa dafa partout. ku ma waxoon Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa est na fii yàlla xam na du ma ko gëm mais bi moo ñëwee fii nii fi ma fi ma tegoon Sëñ Tuubaa dama ko yokk Sëñ Tuubaa kenn du moom. waaw jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. Pakala dang dang dang ko fanaanal bi pour kan la. non dang ko fanaanal moom xam nga instant bii dañoo sonn ci. laaj mbër yoo xam ne nii da nga leen laaj ñuy xool lu leen neex léegi dañuy entraînement rek comme ay xale lan ñu la am may rek ñu jël. mbër ngay laaj ñuy bañ noonu ñan la. non du ma tudd seen tur instant bi. moo tax wala doo tudd seen tur. instant maa ngi Amérique. yaa waaw da may bë. du ma may kenn bës. am man maa ngi liggéey. Ah. na moom ma dara maa ngi liggéey maa ngi am moonin sama xel mu ngi daal ñu ma may jàppale ñu ngi may jàppale yaa ngi dégg su ma demee Sénégal ku a lamb boole ma xam ne kooku la ma lamb booleel su ma bëree wala ma xam ne kon lamb yi ségrégation ñoo si nekk mais man entraînement moo ma indi. kon say adversaire bu yeboo ñu préparé te xam ni yaa ngi ñëw. non loolu mooy mbootu loolu mooy mbootu xaar ko loolu mooy mbootu xaw ma mbootu man noonu la xaw ma la xaw ma lu ko olof ñaari di waxee hmm. mais en tout cas maa ngi liggéey te ku ma xool su ma ñëwee Sénégal yaa liggéey. mais Pakala est-ce que di entraîné kese yaa ngi jàng non États-Unis fii boo fi ñëwee ah musculation rek indi wala fi parce que musculation am na Sénégal mais fii benn dinañ am dinañ am récupération bu ñu mësul am suñu àdduna fii di nga nelaw bu baax di nga lekk lekk boo xam ne lekk bu baax la di nga def musculation di nga def judo di nga def boxe comprends nga ñett yi ma limal yëpp ñu ko fi def. en tant que mbër ndax yaa ngi bàyyi sa xel ci MMA. non MMA moom man moom wax dëgg fa yàlla sport laa gëm man nekkul lamb rek laay suivre sport laa gëm mais nag mënu ma ci développer mais bu ñu yàlla dimbale daal bañ àgg fa rek après dañ ci. dafa métti de. kër pañ yeeg wéq yeeg tulli yi. loolu moom méttiwul parce que loolu ba nga nekkee booy commencé woon di def xeexu mbedd moom ñëpp si jaar émément da ngay da ngay da nga daan def temps booy xam nga yaa say morom rek ñoo ñoo lay wër ngay xeex ñoom danañ ciy daan génn loolu moom méttiwul moom. jërëjëf Paka la ñu ngi lay jaajëf. mais na maa gën a kontaan ci yow di bëgg di sama waa ji ok jàmm xewal jaajëf fa gis ngeen gis ngeen li nga xamante ni moom moo xew fii ci États-Unis d'Amérique euh, mbër yëpp a ngi nii taxaw mbër yëpp a ngi nii taxaw ñoom jëf jël brichi li ndeysaan xaaral ma déglu lu ñuy waxtaan ma sàcc si waxtaan bi lan la ñuy wax. lan la ñuy wax. waxtaan lu ñuy. ah écrit bi nu ñuy delluwaatee Sénégal bëre ji rek. ñu fi leneen. dañu bëgg a delluwaat. bëre ji rek loolu lañ ciy waxtaan. amul leneen lu ngeen di wax. non waxtaanu ci lenn. waxtaanu ci kase ngeen di wax. loolu rek loolu rek ngay wax. <laughs> yow li nga wax ma ne yéen loolu rek ngeen. yow lu tax laajoo gars yi. jëf ma ne yow yaa si yow yaa si gën a dëgër fit. jëf <laughs> yaa si wax. jëf wuyu ma. jëf yaa ngi daw des de <laughs> ay jëf Bruce Lee waaw ndeysaan lii rafet na vraiment rafet na trop dajaloo bi ngeen dajaloo nii euh, fi nga xamante ni moo di États-Unis d'Amérique ndeysaan ah yéen ñëpp ngeen ngeen wane ni yéen a bokk ndey yéen bokk baay même bu ngeen bokkul sax ay écrits sax euh, euh, vraiment rafet na trop si taxawaay bi nga xamante ni moom ngeen taxaw fii tey ci États-Unis d'Amérique waaw gis nga de États-Unis ñun ñoo bokk ndey ñoo baay fii ñun ñëpp bu ñu waxoon na ñibbi ñun ñooy bokk benn avion wala ñu kii yéeg avion bi jiitu sa moroom kii keneen fekk sa morom ñun dañ fi ñëw rek pour jàmm rek ñëw fi rek pour liggéey pour defar yaram bi pour mun a delluwaat suñu def ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp de Amérique dafa nekk dëkk boo xam ne fii dëkk boo xam ne fii xamuñu ay caaxaan liggéey moo fi am. lii occasion yu mel nii mooy tax ñun ñëpp ñu daje. kii ngi dëkk Jersey kii ngi dëkk New York kii ngi dëkk Brooklyn Harlem tey ñun ñëpp a daje parce ku nekk bu xëyee da ngay nekk sa waar. dem lijjanti ñii dem saal dem saal ñii dem feneen dem saal ñun ñëpp ñu ñoo bokkoon day ñëw. en tant que ay mbër tey occasion la yéen ñii ñëpp ngeen daje fi nii euh, vraiment mu nekk daje bu rafet a rafet euh, may dégg ci làmb personne kese ñoom ñoo yor làmb ji. maa lu ngeen koy dund naa dara de fii ñu fi day ñëpp ay champion lañ de. mais nee nañu cinq personnes kese ñoom ñooy lekk ci millions yi. Euh, non loolu ay wax rek xëy na yàlla lu mu bind rek kenn mënu si dara ay waxu cinq cinq personnes man lekk naa sa xaalis bi ba sa làmb ba sonn fii ay loolu ay wax rek la. mais gis nga yàlla lu mu nam su doomu aadama rek nga fii ñu fi dayee ñëpp ay champion lañ fii ñii ñëpp ñii ñëpp xool leen ñii ñëpp ay champion lañ. dañu ñu bàyyi yëpp ñëw di liggéey si pour mun a delluwaat dëkk ba fighting am fa ay ndam pour yëkkat seen drapeau dëkk. mais ñu ñoo bokkoon day ak baay ñun du ñu ay noon buñ fi fekkoon Bombardier nii lay dem buñ fi fekkoon Modou Lo nii Balla nii ñun ñëpp benn lañ dañuy foo ak ree rek làmb ñu boole ndam le mënul génn Sénégal wala wala bo ñu xam jaajëf mbokk yi gis ngeen leen nii boo leen xoolee xam ni ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi vraiment euh, nii la ñu taxawee amaana sax bokk ñu ay écrit mais ñi ngi taxaw di waxtaan ñi ngi saafonte wane ni làmb liggéey la wane ni ñun ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg vraiment tey daje bii bi ma ñëwee fekke ko euh, nekk na lu rafet lool lool lool lool lool lool macha allah euh, jëf lan ngay wax ci loolu. waaw mais dama leen yàgg wax ni leen làmb aw ma si am di jàmm laa si am so lii rek wane na ko kenn ku si ne mënoon ngaa bëreeg sa morom mais bu ñu bu làmb ji passé ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay one est ensemble ñun ñëpp ay sénégalais lañ mais dadi nag kenn ku ne. da ngay xeex sa drapeau réew mais bu ñëwee fii benn drapeau la ñu am muy Sénégal mais bu nekkee Sénégal kenn ku ne da nga sa gox te da ngay bëgg sa gox jëm si kanam moo tax euh, lii daal lu rafet la lu rafet la parce que ñun ñii ñëpp a ngi nii daje kenn ku si ne léegi nii rek étoile Dimele Dior mi ngi may wax ni ma war nañoo fexe benn weekend boo xam ñun ñëpp dañuy daje man leen bu leen naan. waaw mais gars yi fii kenn ku si am nga takkusaan boo xam ni yow rek lañ géewal kon ñëpp ay ndaanaan lañ. fàttaliku bi jëf jël di tëdd si bi bi jëf jël di tëdd si plateau deuxième. <laughs> waaw xam nga noonu maa ngi boo gisee sax maa jël sama téléphone doon woote so pib laa bëggoon rek. demoon naa ba am ko sax mais après si biir ay mbuxum dasee am. <laughs> woon sa bi. <laughs> non wow moon sama. maa ngi way wax <laughs> si biir yëpp yëg ñàng nga ne ah ma woon sama sëriñ bi. non lamb moom xam nga culture la jëf jël moo fi njëkk sol ko si ñëw lamb. jëf jël moo fi njëkk jël boppam dugal ko si. teg si jaag si boppam duggee moom làmb lu ne def na ko si làmb lu ne may nag li am quoi maa ngi koy sant yàlla mais encore une fois bientôt dañuy delluwaat Sénégal ñun dañuy bëri. maa ngi jot dina garaaw non dañuy bëri jëf doole ji mi fi ba léegi. kan man. <laughs> baax na. xadar bi mën na fi nekk fit bi nekk feeg yooyu noonu mais jëf. lamb ji ñun ñun ñun. Ah. amaguñ dara. bay weesu dara jëlal gaay jëf <laughs> ayca pakala kon ñu ngi leen di jaajëfal baax naka nga gisee tey ndaje bi ngeen ndaje fii Edouard dimbalam jooram ko xaaral maa ngi ñëw bi ngeen dajaloo fii tey mu nekk lu rafet lan lan lan nga yëg tey. waaye man li ma yëgee baay Sénégal rek Sénégal rek laa yëg ak contentement parce que lii dafa rafet parce que ñii nii suñuy grand yi lañ naan toog si tel di leen doon seetaan ay jëf jël ay briseli dañ naan toog di leen supporté yàlla xam na loolu nag bu ñëwee ba fekk leen fii ñun suñu fierté la dañ leen ñaanal ñu gudd fan yàlla ubbi leen wërsëg ubbi leen xéewal bañ mën a delluwaat Sénégal. mais mais Pakala forme bi nga nekk nii ba doo yegg Sénégal gën a am problème adversaire a ah, man daal ah, xale laa man li ma la ma la waxoon gàll rek. Ah. xale laa da damay màgg daal. sama màgg sax des na. xale laa de. xale nga de 92. bu ndaw laa barke alxuraan. waaw kay eh, dimbala Dior ñu ngi lay jaajëfal baax naka nga yëg tey jii bi nga bi nga yegg see fi fekk say mag say xarit. ñi nga xamante ni tamit yaa leen mag ngeen dajaloo nii toog waxtaan mu rafet trop dama kontaan trop kontaan trop surtout di gën a kontaan ci yéen nag yéen ñi nga xam ne fépp foo leen fekk mbëri sargal leen fii lay xewee ci wasaare bilaay wasaare fépp foo leen fekk mbëri mbëm bu ñu nëbbatu woon sax di ngeen leen feeñal waaw ñëpp di leen di gis xam ne ñii ay mbër yéen yàlla rek a leen war a fay ñun ñun ak yéen ñooy ànd mënu ñoo dem ngeen dàq dàq ah, la nag loolu la nag mën a ànd xool bés bi nu mu neexee ñun ñëpp a ngi fi daje jëf nii di naan ne il faut que ñu daje benn jour daje këram toog waxtaan ñëpp bokk ndey bokk baay mais yéen nag yéen tamit da ngeen ciy bokk. ndeysaan dëgg la maa maa ngi remercier di sant bu baax a baax Marcel Diagne Marcel Diagne maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax a baax a ku baax ku ku ku bëgg ATM maa ngi koy remercier bu baax Marcel jaañ borom borom appartement yu rafet yi borom euh, building yu rafet yi macha allah euh, di wax ñëpp rek nañ dem xooli ji li nga xamante ni moom moo di kër yi. Marcel Diagne euh, ku baax la. ndeysaan waaw xam nga sama mbokk séeréer la Jilaas la dëkk man ma dëkk Joal Fadiouth. Ah. yow moom xam naa tukkuleer nga. man tukkuleer la tukkuleer kon moom tukkuleer la moom. waaw eh, nga. tukkuleer la. waaw non ayca mi ngi kontaan nañ ci yéen nag. ayca jërëjëf sincèrement yéen a ngi def lu rafet. tukkuleeru pare la. jaajëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax. فتكف جورا لمن يراي عن خسيالي من الدلال فبخلالي هني سراي Matera, mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax euh, loolu lañ fi amoon ci li nga xamante ni moom leen doon leen di diktal euh, indil leen ko di euh, màggalu ko New York moo amoon xewee fii ci euh, New York nag ñu doon leen ko diktal vraiment ci wasaare TV ci biir lool mbokk yi ñu ngi jëfal bu baax a baax a baax képp koo xamante ni yaa ngi bëggee di safoo bu baax ATM Seck fii ci New di jaajëfal bu baax a baax Bàcci Gumbala di jaajëfal baax baax Mouhamed di jaajëfal bu baax a baax ABC di jaajëfal mbokk yi bu baax a baax a baax ki nga xamante ni moom moo di jëwrin Diosi euh, euh, di jaajëfal mbër yi nga xamante ni ñoom lañ ci fekk mbër yëpp ñu ngi leen di jaaj jaajëfal baax a baax ku si mel ne ñoom Pakala euh, ku si mel ne ku si ku si ku si mel ne ku si mel ne Jëf Jël defe naa ne ku lim da ngay juum mbër yëpp rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di leen wax rek ni li lii lii moo fi amoon lii leen leen doon digtal lii leen leen doon indil ak Wassare TV defe naa ne boo bësee li nga xamante ni moom di cloche bi di nga mën di am vidéo yi saa su ne ak waxtu bu ne di jaajëf bu baax baax Marcel Diagne Massé Diagne maa ngi koy jaajëfal di ko bigéey bu baax a baax ah, ah nekk fii ci États-Unis d'Amérique di ko jaajëfal Marcel ah, di koo xamante ni ku am jom la ku nangoo liggéey ah, vraiment defe naa ni ñëpp bu ñu defoon ni Marcel Diagne Sénégal dina dina développé ci lu bëree bëri bëri mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal di leen tàggu di leen jox dig dig daje ba beneen yoon bu leen fàtte di bés li nga xamante ni moom moo di cloche bi abonné leen ci YouTube bi su ko defee di ngeen mën di am bépp vidéo bi nga xamante ni dina dugg fii nga xamante ne moom moo di Wassare TV borom l'est l'ouest le nord et sud jantal animateur best of d'animateur in the world fii ci New York jaa ngeen jëf. yéen Bamba déglu leen Moussa murid ba woon leen ndaw ak mag ak góor ak jigéen nañ wuy ji